bisimila mbokk internet yi daleen ak jàmm lu doy warte yéeme lool ci boroomi xel mbiru yàlla la am déeta tontu ba moom la ñëpp di xaar xawma kan moo doon ñaan waaye ndaw si moom yàlla may na ko lu ne gàññ ab candidaatu examen baccalauréat bu bi moo wasin ca digg examen ba ñu ne déeta waaye mu daal di jël raw gàddu gi nekk première du centre waaw wow xibaar baa nga tukkee ko ci yéenekaay bii di source a mi ko fësal tey ci talaata ji ab candidaatu baccalauréat 2020 buy wuyoo ci turu Aysatu moom moo wasin ca digg examen xamante ne épreuve ya xaaj na waaye donte nekk élève daal di ëmb wala wasin du gulet ci réew mi li yéeme ci mbir mi kay mooy Aysatu candidat ba ba résultat yi génnee moo jël raw gàddu ga waaw première du centre lu kenn mënta werante moom ba bachelier wasin bees ma ngay nettali mbir ma ci ay kàddoom Aysatu di wax ne ca ñaareelu fanu baccalauréat bi maanaam ci examen ya waxtu wa nga xamante ne jotoon nañu pare ca épreuve mathématique ya ca la mat tàmbale maa ngi pare samay épreuve maanaam quatre ca ngoon maanaam ñeent waxtu ci ngoon Aysatu ne ba mu fa jógee kër ga rek ca la tàmbalee di matu métit ba ma sonaloon ba tax ma daldi waaxu daw dem ca l'hôpital ba falaa mujj daldi wasine am fa doom ci juróomi waxtu yu toftal ñeen fukki simili sage-femme bi ma réewle moo ma bindal ab këyit di ab ak d'accouchement ca la gaawantu daw dem ca centre ba ngir daldi wëyal samay examen donte tardé woon naa ci lu tollook fukk ak juróomi simili mayu yàlla ngoogu de gëm sa bopp rek bañ a yaafuus yàlla may la doom may la bak teg ca jox la raw gardu ga waaw kay Tactic ngi leen di jaajëfal